ngeen jëf mbokk yéen internautes yi safoo di seetaan Buzz Sen TV daleen ak jàmm si seen actu du jour tey seen actu du jour koy dooree ak Ndeye Khady Ndiaye bonne nouvelle sax la ñuy di wax mi nga xamante ne nii mooy borom Sweet Beauté daal dinay am doom bu ci benn clinique nekk foofee ca Kër Massar moom mi nga xamante ne nii nag moo na sax ci procès Adji Sarr ak Sonko bile ci li nga xamante ne nii rek moom la doon toppee njiital Pastef ancienne masseuse bi lee di Adji Sarr waxoon na ko jëmale ko ci Ousmane Sonko moom mi leen moo am doom bu góor dem ba sénégalais yi wax ni sax bu góor boobee est que du ko tuddee ki nga xamante ne nii moo di Ousmane Sonko Ndeye Khady Ndiaye nag daal dinay jot ay félicitation yu bare bari ci doom bi nga xamante ne nii rek daal dina koy am mu di euh, doomam bu góor bi lee la ñuy wax mu di ñaari GIGN yi nga xamante ne nii rek daal dinañ leen di teg loxo foofee ca Mbour gannaaw ba nga xamante ne nii nag daal dinañuy fekk ci ñoom ñaari milliards ci suñuy koppar mu nekk mbir mu doy waar ñaari GIGN yoo xamante ne nii rek ci xibaar yi nga xamante ne nii rek daal koy jot ñi doon liggéeyal benn autorité nekk ci état bi loolee nag nekk mbir mu doy war a yor sunuy di def li nga xamante ne nii moo di ay trafic wala di dugg ci leen di uh, teg loxo gannaaw ba nga xamante ne nii nag deux milliards la ñu fekk ci ñoom te deux milliards yooyu ay faux billets la mu nekk nag mbir mu doy waar gannaaw ba nga xamante ne ni sax ba ñu leen yóbbee ci kanam yoon lañ leen di toppee yëpp daal dinañ koy nangu mu di association de malfaiteurs ak yeneen ak yeneen yoo nañu rek daal nañu leen loxo jamono jile foofee ca Mbour ga ñu daal wax ci délégation Yewwi Askan Wi bi nga xamante ne ñi rek daal dinañuy dem foofee ca diwaanu Touba ca dëkk bu sell ba ngir seeti sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke ngir waxtaane ci tolluwaayu réew mi gannaaw ba nga xamante ne nii nag sax ñoom délégation Yewwi Askan Wi la ñoo xam ne rek moo di kii di xalif général des mourides di sëriñ Muntaxa daal leen di rassuré ndaxte li nga xamante ne nii rek moo leen fi indi loolee nag moo leen si uh, njëkk loolee nag Habib Sy moo ko daal di xamle gannaaw ba nga xamante ne nii nag dañu dem waxtaane ci tolluwaayu réew mi ak ki nga xamante ne nii nag moo di Ousmane Sonko ngir ñu daal di koy uh, bàyyi kii nag di sëriñ Muntaxa Mbàkke daal leen di rassuré li nga xam ne nii rek daal dinay waxtaan ak ki nga xamante ne nii rek moo di euh, njiitu réew mi jëm ci li nga xamante ne nii rek moo di mbirum Ousmane Sonko waaye kii di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yamul ca rek moo di xiifal bi nga xamante ne nii rek ko daal di def yékki ay kàddu jëmale ko ci tolluwaayu réew mi gannaaw ba nga xamante ne ñu ne waa délégation Yewwi Askan Wi ñoo demoon foofee ca Touba ngir waxtaane ci tolluwaayu réew mi di addu wax ci wàllum people gannaaw seenu mariage mu di Aline Seck ak ki nga xamante ne nii moo di Khadija nekk doom ci aw Baba Thiam gannaaw ba nga xamante ne nii la ñu daal di gis kenn ka di yàq musiba ak mbelegaan ki nga xamante ne nii moo di aw Baba Thiam ko koy nag ko def moo a Salas Sow moom mi nga xamante ne sax moom moo nekkoon xew bi moom mi moo daal di yëkki ay kàddu yekk musiba ak melengaan ki nga xamante ne nii moo di Awa Baba Thiam lu ne wax na ko di wax ni rek da ngaa ay bor te it da ay njaaloo astaghfirullah mu nekk nag ay mbir yu doy waar yoo xamante ne nii nag Salla Sow moo ko daal di yëkki teg ko ki nga ne nii rek moo di Awa Baba Thiam bi nga xamante ne nii rek amaloon nañu ko mu di mariage Alioune ki nga xamante ne nii nag moo di Khadija loolee nag di ay audio fuité ki di Salla Sow moo daal di yëkki yooyu kàddu di yekk musiba ak melengaan ki nga xamante ne Awa Baba Baba Thiam wax ci borom def gis di wuyoo ci turu Bara Ndiaye moom nag mauvaise nouvelle chambre d'accusation bu cour bu Ndakaaru daal dinay gàntal li nga xamante ne ñi di liberté provisoire ñi koy bañ loolee nag chambre d'accusation bu cour bu Ndakaaru moo gàntal li ni mel bu ci avocat am di maître Moussa kon nag Cheikh Bara Ndiaye day descendi foofee ca mu nekk nag mbir mu doy waar gannaaw gannaaw ba nga xamante ne ni sa ay famille ñu ngi doon génn di ñaan ngir ñu daal di koy bàyyi ngir mu mën a dem màggali waaye rek chambre d'accusation bu cour d'appel la xam ne rek moo di Cheikh Bara Ndiaye yóbbu woon nañu ko foofee ca réanimation gannaaw ba nga xamante ne ni sax nee na nangootul jël benn soin ndaxte rek loolu dara waralu ko dul injustice bi nga xamante ne ni rek daal dinañu koy teg ci ndoddam waral nag mu ni du jëlati benn soin maanaam du jëlati benn paj boo xamante ne ko def ci yaramam loolee nag Cheikh Bara yi moo ko daal di xamle moom mi leen nag de desandi foofee ca kaso ba gannaaw ba nga xamante ko li nga xamante ne nii moo di liberté provisoire ba nga xamante rek moom di maître Moussa Sarr daal di àddu wax ci maire bu Guédiawaye Ahmed Aïdara moom mi leen nag daal di ba nga xamante ne nii seen conférence li nga xamante ne nii rek moo di njiitu réew mi di président Macky Sall ni mu mi ndax tey tëj bu ndoxatal ñi nga xamante ne ni sax jàpp nañu ni dañuy wax seen xalaat rek ci réew mi ku wax sa xalaat ñu daal di lay jàpp daal di lay tëj loolee nag du samay kàddu ay kàddu yu Ahmed Aidara la di ñaawlu li nga xamante ne ni rek moom la réew mi di euh, doxee moom mi leen nag di Ahmed Aidara dinay àddu ci exil bi nga xamante ne ni rek maître Ngagne Demba Touré daal dina koy amal foofee ca réew Mali yi moom leen nag di Ahmed Aidara nee na du maître Ngagne Demba ture mo def li ni mel am na ñeneen ñu toll ci ñeent fukk yoo xamante ne ni rek daal dinañuy génn réew mi ndaxte jàpp nañu ni rek rek réew mi ni muy doxee loolee arrangé wu leen tax ñu daal di fi jugee loolee nag Ahmed Aïdara moo ko daal di nga xamle gannaaw ba muy jënnoog taskatu xabaar yi moom mi leen nag ki nga xamante ne nii moo di njiitu réew mi di président Macky Sall mi ngi koy ñaan ngir mu libéré ñi nga xamante ne nii ñoo di détenu politique yi toll ci 1062 ak chef de l'opposition di woo ci turu Ousmane Sonko loolee nag Ahmed Aïdara moom maire bu Guédiawaye bi lee gannaaw bu mu jënnoog taskatu xabaar yi moo daal di yëkki yilee kàddu daal di koy jëmale ci tolluwaayu réew mi di wax ak ki nga xamante ne nii rek moo di njiitu ci di président Macky Sall ngir mu bàyyi détenu politique yi ma ngay continuer lii di grève ngir ñu daal dellu ci seen ay famille Ahmed Khalifa Niass moom mi leen nag mu mel ma ngay lancé ay pic kii di njiital njiital Pastef ndaxte rek nee na li nga xamante ne nii moo fi xewoon ci mars 2021 di événement yi nga xamante ne nii rek xewoon na fi ak yi nga xamante ne nii rek daal dina koy jur ak ñi nga xamante ne nii rek daal dinañu si ñàkk seen bakkan ñu nekk nombre bu baree bari loolee nag Ahmed Khalifa Niass nee na principal bi moom la loolee nag du samay kàddu ay kàddu Ahmed Khalifa Niass la gannaaw ab communiqué boo xamante ne nii rek daal dina koy biral moom Ahmed Khalifa Niass nee na nag day wane Ahmed bi nga xamante ne rek mooy taal réew mi loolee mi ngi sama loxo loolee nag Ahmed Khalifa Niass moo ko daal di xamle waaye yemul ca loolee gannaaw sortie bi nga ne nii rek soxnaay Ousmane Sonko daal di nañu koy amal foofee ca Dakar matin. naaw ba nga xamante ne daal di nañuy ñaan première dame bu Sénégal ngir ñu daal di bàyyi ñi nga xamante ne nii ñoo di détenu politique yi ak chef de l'opposition di Ousmane Sonko. moom Ahmed Khalifa Niass nee na nag loolee Marième Faye dina ci def lu mu mën ndaxte rek moom mi ngi koy woowee lii di maire de la nation maanaam wala sax président de la république kon nag li nga xamante ne rek ñaan nañu ko war na a régler loolee nag Ahmed Khalifa Niass moo ko daal di xamle gannaaw ba nga biral jëmale ci tolluwaayu wax ba léegi moom mi leen nag daal dinay àddu jëmale ci grève de la faim maanaam xiifal la bi nga xamante ne ñi rek jamono ji leen jiital Pastef mi ngi koy bi nga xamante ne ñi rek mi ngi koy def ndaxte rek loolee bu si ñàkkee bakkanam loole nag xaaru la ndaxte yàlla buggul loolee loolee nag Ahmed Khalifa Niass moo ko daal di xamle ci communiqué bi nga xamante ne nii rek daal dina koy jénne nee na mi ngi ñaan ki nga xamante ne nii moo di Ousmane Sonko ngir mu bàyyi grève de la faim bi nga xamante ne nii rek mi ngi koy amal moom Ahmed Khalifa Niass moo daal di yëkki yile kàddu daal di koy jëmale ci réew mi ak gannaaw ba nga xamante ne nii rek ci ab communiqué boo xamante ne nii rek daal na koy pirel